Bon, maintenant, sur le plan politique, euh, c'est vrai que l'actualité, c'est le collectif euh, euh, dinañu daje ak président Macky tey bon loolu lañu ñu laajoon avec ouais. la lettre pour rencontrer le président de la République mais apparemment collectif bi euh, est divisé am na ñi nga xam ne dinañu dem am na ñi nga xam ne nañu ñu dem mais dans tous les cas ça devient l'actualité politique pour pour man euh, c'est mm. vraiment ça l'enjeu lan la ñu war a waxtaan ak Macky lan la ñu nar a jàpp par rapport au processus électoral pour pour man c'est vraiment l'enjeu de la rencontre avec euh, Macky lu ñu fa mën a jëlee jëlee en termes de consensus par rapport aux défaillances du processus électoral est-ce que Macky Sall dina jël engagement am déet c'est une grosse question Ben, L'autre question aussi, moi, l'avenir du collectif. Parce que si j'ai bien compris, euh, ñu nekk ci euh, collectif bi am na ñi nga xam ne ils iront dans l'opposition pour le changement de régime donc ça veut dire que ñu bokk wala ñu bañ a bokk dina am des alliances soit avec euh, les candidats de Yewwi soit avec Khalifa euh, donc là c'est une perspective quand même bi nga xam ne mu dina mën na lu mën a am la que am des alliances entre les recalés et des candidats euh, les candidats certains candidats en, mm. en lice bon maintenant les rivalités c'est c'est vrai que il y aura quand même euh, la grosse question conseil constitutionnel lu mu décidé ñu ci àndul euh, bari nañu. Mm-hmm. muy ñu ñu recalé ak ñu ñu recalé wul je pense que ñoom ñëpp d'accord nañ ki conseil constitutionnel bi euh, fi mu waroon taxaw taxaw taxawu fa. Mhm. maintenant est-ce que le conseil va revenir sur euh, certaines défaillances ou pas. Mhm. je crois que loolu yëpp mu ngi dépendre ci l'issue de la rencontre avec le président Macky est-ce que Macky Sall aura même voilà c'est le calendrier moom est contre. <laughs> le report. mais maintenant kenn xamul ma ma je disais euh, que report bi arrangé wul Macky mais bon ñu ngi ci politique situation ni mu demee nii euh, bon est-ce que est report su amee report moom ça va modifier énormément de choses ah que Macky du demati en avril élection bi kañ lañ koy euh, poser s'il y a report mhm. les conséquences seront négatives maintenant est-ce que Macky Sall dina am euh, dina am de quoi accepter pour pour mën a jusqu'à tant que président sortant il n'a pas d'intérêt à rester après avril sur le plan politique mmh. maintenant euh, bon comme je l'ai dit que dina daje ak certains acteurs du collectif le PDS aussi ne l'oubliez pas le PDS ne fait pas partie du collectif mais mm. le PDS va faire pression donc loolu yëpp qu'est-ce que ça peut données je crois que lu nekk suñu kanamam rawul gën